suñu borom neen moom moo war a nekk suñu roy waay nit ki nag boo koy roy dañ koy roy ci wax roy ko ci jëf yonent bi sallallahu alayhi lépp ma sell lépp loo ko roy rek njëriñ nga ciy gis zaahir ak baatin dafa am benn hadiis bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu wax nag mu ni ton na wa turzaquuna bi du'afaa'ikum nit ku néew doole am na loo xamante ni moom moo yell ci moom mooy yërëm ko waaye du xeeb ko yonent bi salaa salaam daf daa wax ni yal na ma yàlla boole ci miskin yi dafa bëggoon miskin bëgg néew do wuy néew doole boo gisee digganteem ak Bilaal ni mu meloon ak Ammaar ak Yaasir ak ñooñu miskin yi màkk yi nga xamante ni ñëpp dañu leen a di sànni leen ni ay jaam lañu ay walla kaana lañu yonent bi salaa salaam ñooñu la dem jege leen mu dem dem dem ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ni ku bëgg yëkkatiku ku bëgg wërsëg jegeel woy neew doole yi mooy tunsaruuna wa turzaquuna bi du'afaa'ikum yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ku bëgg ak yëkkatiku dëgg-dëgg wala nga ubbi nga bëgg ubbeeku dëgg-dëgg jegeel miskin yi ndax miskin boo ko joxee teral ko seral xolam suñu borom dana la yëkkati dana la wërsëgal dana la tàggatal lépp lu la jafe woon suñu borom dana la ko tàggatal kon yéen kon xadis boobu xadis bu am solo la xadis bu am solo la boo xamante ni ku ko dund ku ko dund da ngay gis njëriñam léegi kon wër di wër di ñaanlu ji ak fu ne nga ut fa ay saafara ak sànkate ki mbir jëfeel waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek dimbalil miskiin boo ko dimbalee rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na di nga am di yàlla dina la yëkkati te dina la wërsëgal kon bari na lu nit di wër di paas sori di seeti ab bu xaaba pour mu defal ko mbir fekk na lay faj sa aajo ab jëf la boo xamante ni danga koy jëf te ci sa diine la di nga ci am ngërëmal suñu borom di nga ci am ak euh, ndigal ndigal doxal sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonent bi loolu mooy sunnaam jege miskin yi ko bëggoon miskin yi la kon mbokk yi dem di ñaanlu ji ñaanal sa bopp moo ko gën wokkal sa bopp wokkal sa bopp moo gën wokkal ma ndax fa fa xesan ba fa xesan ba tollu dëggantaan e, yow yaa ko yaa xam dëggantaan ndax li arab di wax ne maa xàkk maa xàkk jilduka misla zufrika sa der ni ko sa wee bopp ni muy ni mu lay wokkale sa der beneen wee mënu loo ko mënu loo wokkale noonu kon dem di ñaanlu am na loo xamante ni moom mooy ñaanal sabab bañ a ut benn waa sa sa diggante ak suñu borom benn diggante benn euh, nga ut bañ a ut kenn daal koo xamante ni da koy jaarale sa diggante ak sa borom mu nekk waa sita waaye yow direct yaa ak sa borom ngay ñaan suñu borom mu lay fajal sa aajo te kenn te doo ci dugal kenn dara gënu ca nag waxu yenent bi salaa salaam ku bëgg a noppalu delluwaatal ci waxu yenent bi waxu yenent bi xadis bi xadis bu am solo la képp koo xamante ne bëgg nga ak yëkkatiku képp ak ci mbir boo mbir boo mën a nekk mbir boo mën a nekk nga bëgg ci ak yëkkatiku seetal woy néew doole nga di leen jàppale képp koo xamante ne bëgg nga ubbeeku sa wërsëg ubbeeku te sangatu woo takkoo defoo dara jàppal ci jëbal xadiis yonent bi salaa salaam muy jàppale miskin yi miskin nag ku ko bëgg jàppale doo ko jox doo ko jox ay bekki suukar doo ko jox sondeel doo ko jox guro bu weex ak guro bu xonq ndax loolu amu ci dara loo xamante ne dana faj aajo miskin da koy fekk ci bitig bi da ngay dem ci bitig ba di jënd nga daj fa ak miskin bi muy leb kilo ceeb nga yëkk nga jënd fukki kilo ceeb jox ko wala nga jël ñaar fukki kilo ceeb jox ko ak diw ak diwam loolu moom mooy sarax kooku dab nga ban nga bànnee xam dëggantaan façon sarax yooyu moo baax te sarax bi gën a baax sax mooy miskin bi nga bañ koo xaar ba muy ba muy ba muy jooytu bu muy dem dem bay bay bay toroxlu di joytu di jambat bu ko xaar bu fekkente ne xam nga adina deugantan miskin bo dekkal ci koñ war nga ko jangat bu baakha baax ni ngay xol sa wërsëg ni muy doxé ak sa njabot ak lu leen di dox ay doxal lu doxal sa kër war nga gesu këru miskin bi këru miskin dang ci wara tek sa bët mom tamit nga xol nan lañuy dundé ngay xol di gesu lan mo wara manki kërëm tay, tey bu dee ceeb la nga lijjanti ko jox ko bu la nga jox ko bu dee courant moo jeex wala télé moo yàqu wala dara nga fexe ba lijjanti ko buntu boobu say dëkkandoo war dara warta jaar sa diggante ak ñoom war nga ubbeeku ci ñoom bu baax a baax ba sa kër ni muy doxee ba lu lu yàqu nga taxaw ci bu courant manqué nga taxaw ci ndox manqué nga taxaw ci kër sa mbokku dëkkandoo miskin itam noonu nga war a doxalee këram ngay xool di ko di di di lijjanti këram lu fa taxaw nga nga faj ko te doo xaar mu mu yalwaan kon yonent bi salaa salaam li mu wax ku bëgg ubbeeku ku bëgg ak yëkkatiku jàppal ci miskin yi jege leen di leen dimbali loolu daal mbokk yi maa leen koy dénk euh, di ñaanukaayu yàlla la daal fajukaayu aajo la daal boo xamante ni bu am solo la fajukaayu aajo la bu am solo boo xamante ni yonent bi salaa salaam moo ñu ko moo mooñu ko dénk muy dénku ñu miskin yi ku bëgg yàlla yëkkati la ku bëgg yàlla ubbi la jegeel miskin yi nga dee faj seen aajo والسلام عليكم ورحمة الله رسول الله في قلبي وفي الأرواح سكناه هو النور الذي يهدي إلى رضوان مولاه تجلى رحمة وسعت جميع الخلق رحماه يتيه الحرف في وصف تعلق فيك أنساه